employés yi nga xam ne bëgg nañ ko sauvegarder ñu sauvegarder ko dinaa ci profiter aussi di remercier le président de la république bi mbas mi commencé li mu wax ñi mu njëkk a tudd mooy secteur tourisme wax ne secteur tourisme mbas mi lal na ko bu baax a baax a baax te état bi dina ci def li nga xam ne moom moo mooy la ci man pour dimbali pour ñu sauvegarder employés. mais ñun aussi sacrifice bi ci def moy accepter li mu ñu demandons. maanaam pendant trois mois fay 70% salaire. pour cent salaire yi umpalewu leen ne des pour fay ay salaire du logique économique salaire la koy fay da employé euh, société bi mon moo ko war a mais loolu dañ cee d'accord le président de la république parce que Sénégal ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk ma di ko ci sant di ci gërëm di sant aussi suñu ministre Aline Sarr parce que trois mois nous nañ ko avec ak ay pour produire dossier qui est ne dimbali président de la république pour mu prendre a jël mesures yi nga xam ne tey ñu permettre ñu maintenir employé yi ba fi ñu tollu fi mu nekk ni mais xam nga euh, fii ñu fi ñu jëm dafa lëndëm gisuñu ci lu leer motax boba ak légui aussi président Racine si ak ay équipe ñi ngi réfléchir ci ay solution xol naka lañu mëna def pour jappalé société yi yëngu ci tourisme yëpp au Sénégal pour que employé ñu mëna leen maintenir besoin en fonds de roulement yi nga xamné ñëk nañ ko financer pratiquement lu mat 10 milliards dem nañ ci mu nekk ndimbal loo xam ne ñi ngi ciy sant di ci gërëm président de la république mais loolu doyul parce que fi mu nekk nii trois mois yi jeex na ñi ngi jëm ci ay mois yoo xam ne mois yu difficile la ñu doon biñ ci waxtaanee ak nguur gi waxtaan ak ministre de l'économie et des finances Amadou Hott ak euh, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo li ñuy wax mooy Sénégal dafa nekk ci ay difficultés fi nek ni sen préoccupation bi nga xamné mo moo mag moy mbas mi naka lañuy def pour arrêter mbas mi mu wara a laaj xaalis bu bare bare bare légui yeena a ngi wax problème retard ci mise en place su crédit mais liko ko waral yépp aussi moy xaalis bi niñ koy annoncer disponible wul manam buñ la annoncer né le 15 milliards du 15 milliards yo xamné dang koy jot état bi da ciy génne li mu ci mën a génne ñun aussi dossier yi nga xam ne indil nañ ñu ko depuis pratiquement trois mois ñetti fan par semaine dinañ ko toog ministère du tourisme et des transports aériens ñu étudier dossier yooyu pour xool naka la ñu mën a saafara problème yi donc fi mu nekk nii li nga xam ne waxtaan nañ ko ak ñoom li ñu wax mooy BFR yi mooy besoin fond de roulement yi nga xam ne doon nañ ko defal maanaam salaire yi 70 pour cent charge d'entretien yi gardiennage électricité eau yi ñu jappalé ba ñu mën ci ba ñu passé ñetti weer yi mënu ñu ko continuer mais ñi ngi gëstu ay piste ak ay solution yo xamné avance de trésorerie lay doon yo xamné ci condition yu avantageuses lañ ko bëgg défal hôtel yi restaurant yi agence de voyage yi ñi ak ñëpp ko xamné yaangi yaa ci wàllu tourisme. nous n'avons aucun intérêt des, agents que nous avons volontairement recrutés, nous séparons de, sa motif. Des sanctions spécifiques sont prévues pour les fautes. Mais en matière de crise économique, dans, dans la situation de crise économique, c'est la situation et les perspectives qui nous guident dans les décisions qu'on prend. On prend des décisions de gestion qui, par moment, nous-mêmes nous peinent mais nous sommes obligés de les prendre. Et c'est ça la réalité des choses. Au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas un chef d'entreprise qui a en tout cas envisagé le licenciement. Maintenant, l'alternance au travail, c'est quand il y a du travail. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas possibilité de faire de l'alternance. Mais tout ça doit se discuter pour se comprendre, pas pour aller en situation de conflit. Parce qu'après le conflit, il y aura certainement de la casse, mais il faudra bien reprendre le travail. Et quand le climat est déjà détérioré, ce n'est pas des bonnes conditions de travail, parce que déjà, on a ouvert des situations de, désaccord, parfois profonds, qui ne, permet qui ne permettront plus d'avoir une certaine confiance. C'est-à-dire que si l'employeur perd la confiance à son employé, et si l'employé n'est plus dans son assiette pour travailler, parce que puisque il n'est pas dans son assiette, il n'est pas productif. Et nous, notre intérêt, l'employé soit productif au maximum. C'est ça notre intérêt. Nous n'avons aucun intérêt à créer des situations de conflit. Aucun intérêt.